jox nañ ko cër donc loolu loolu moo waral tey teewaay bi fii tey waaw tey keroog ñu xool tey mbëri ñi ngi jooy ñu ngi jooy dagg bi dagg bi métti na trop hmm. ñu xool ñi di wax naan pourquoi pas docteur Dior suñu suñu suñu suñu suñu buñu jiitee docteur Alioune Sarr ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy lancé message boobu yow loolu ban message nga si mos mën wax si mbëri waaw xam nga euh, àdduna moom rotation dafa baax si loo gisee àdduna waaw parce que tey pouvoir dafa war a rotation boo xoolee premier président euh, Sénégal euh, sénégalais Senghor la woon. après Senghor Abdou Diouf après Abdou Diouf rotation dafa baax ci pouvoir. te dañ dañu seetlu tey euh, ñi fi nekk tey ah, nangu ñu rotation. nangu mhm. nanguñu dem dañoo toog xam nga. ñu xam ne yàggaay bi moo indi sax dérive bi ñuy def parce que boo demee ba ñu dagg tey mbër yu ndaw yi da bëree ay day day na tey xam nga euh, ñu daal di dem ñu xool beneen façon doxalin parce que seen doxalin baaxul loolu moo indi lii yëpp tey dëgg la mais xam nga tey jii boo su kilifa gi ñu woo tey si loolu la ñu sukkandiku mm-hmm. moom daal la ñuy déglu lépp loo xam ne tey jii woo nañu si pour ñu xam ne ñu gis nañu si bopp pare nañ pour dem ak moom mais leneen lu mu fi wax loo xam ne arrangé wuñu je crois bien on va sortir noonu dem xool continuer suñu xeex mm, merci beaucoup non li ñuy xaar si moom injustice bi fi am tey parce que ñëpp xam nañu li am tey si la am injustice la parce que tey mënuñu un comité d'exception boo xam ne trois ans war a def la fi war a def toog fi vingt quatre ans tey loolu la ñuy xaar si moom pour mu jëlee leen fi xool beneen transition bu muy def pour euh, làmb kanam